في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخرة وذكر كثيرا ولما رأى المؤمن إمام إمام لا لنجي لطيف واي بل ñoo dem لطيف لا لطيف moom Latif laa la nit bi de ci benn rajo ñu tuddee ko imam Cissé Latif waaw léegi nag dam bu nga baaxee ñu waaw waaw maa ngi ma seetlu jaan ñu ngi ñoo ko ne xam nga Latif uh-huh. dafa ne tur woo xam ne bu kéebaane la mm-hmm. alors nit ñi nag dañ koy faye waaye gis ngeen billaahi wallaahi wa taalaahi ba ma jógee def émission ba pare nag j'ai défié les grandes les grandes maisons religieuses na ma yàlla baal ma ni kër gu fi tàkk rek latif la taal gu ma mën a doon génnewu ma ci nag kenn waaye gis nga la ma kontaan la gis nga taal keroog bëgg nekk ba si toog sëñ Mansour si ca Tiwaawan gis ngeen kii balaa tuwaa sëñ Mansour xaaral moom la sëñ Mansour daan tabaski wallaahi moom la koy moom waaw xaaral moom sëñ Mansour daan gis nga jumaa ji bi ñu koy kii moo tax fii dafa nañ fa loo xam ne waa quartier bi xamuñu ko bi ñu toj jumaa ji ma ma ànd suñ man suñu këram ñu ngi fekkee waa kër ma jabal yaa ngi koy fàttali ko kaw trois heures du matin lañ ko jege ma ñëw man ma yow lay wut yow dama yàpp ma ne ko yow lay seet bu ne ma sëggal ma sëgg mu rëkk ma ne ma yow lay wut ma ne ko jumaa ji ma ne ah da ngeen teg pause première waaye ne waa man waa d'accord baax man ma kii nag man ma kii xam nga ko maa la ko gën a xam xaram daa doon tabaski man ko léegi nag xar ngeen man tam na ma siy jox ma bisimilah. yaa sama nijaay ñu waxtaan kër bindu la na ma fa leet sax tout ko doon kii mu jox ma benn affaire mu ne bu ngeen demee mam seedal daf leen ko fa bu soobee yàlla ku leen contre yàqu ku ko ànd ak mu ñaan mu nangu fii te di ngeen ko tabaxal mi ngi nii mooy seede du ma fen mukk ci kanam ndax dafa am fu ma teg gis nga latif boobu nag fa tabaarakalla moom ci moom laa ko jëlee am na soo yoo xam ne dama ko sàcc mais yëgu ko waaw ndax gis nga njàngum tubaab dafa doy waar gis nga benn taalibe ba ne wax nooyeen ba moom la ko féetale woon ku man la tiit la ndax dafa am tam cuuraay boo xam ne moom doon àndal nga nag boobu billaay wallaay taalaay li ko nit ñi laaj demee sa rus du Sénégal de Amérique ak Europe cuuraay cuuraay imam c'est pas pour faire de la publicité man dama compte sëriñ si dem ci rajo ak organe de presse naan mën naa lii mën naa laa non gis nga

gis nga nag latif bii kër bu ñu ko jëkkee def li ma gën a kontaan la maa ngi kas bi ba tey benn góor moo dugg ni ma doom maa gëm li nga wax nga ne nga ne nga ne latif ma ne ko kër bi fi nekk moo taal génnoo ci benn man ma maa la gëm mun na gis nga wallaahi doom sama bàyyi mas naa si kër latif ba quatre heures du matin kursu gannaaw hmm. waaw rajo laay waxee de hmm. Cheikh Diagne mu ne kursu gannaaw mu ne sama bàyyi dof mu ne ban toogee ba ci yoor ya ci ëllëg sax ci dix heures mbedd mi di riir wallahi damay wax ne mbedd mi di riir ñu xew ñu ne lu xew lu xew lu xew lu xew mu ne ma génn ma seen banoon banakaara ba sëñ Babacar wallahi barke alxuraan bi la ko waxee man ko sëñ Babacar man maa man na gis ne bi mu ñëwee daraaja xam nga dara poste daraaja ma ne fii la génne course bi ñu ko bit ko sama bàyyi ci bopp sama bàyyi xim ma ne ko ma ne ko nii la gannaaw salaatu faatiha la tiif rek covid ak moo la taal waaw covid ak moo la taal man nag defe naa ma Cheikh Tidiane ñoom ak Khalil def nañ ko lu jege dix ans ci rajo yi du du wal wala fa lañ commencé RMD te da Imam Cissé kenn du bokk amul émission parce hmm. que li muy wax dafa bëri te hmm. gis ngeen li gën a kéemaane on a fait embaucher des gens des chômeurs da ngay téléphoné rek ni man de ma place nangam ak nangam nga gis benn directeur de service ni wax ñu waxal kooku bu ëllëgee mu ñëw ma embauché ko ki ma ci mujj xam ma ah, kii ba ba kii la maire ba la ba moo newoon Fass léegi mi ngi dëkk fii kooku moo ci mujj benn gol boo xam ne nee na semaine à vingt ans mu téléphoné ne may ima alors ñu ko bu ëllëgee na xëy si maire moo moo xëy ci maire mu ñëw ma am embauché ko mi ngi dëkk fii léegi nii ñëpp ko xam Adama Ba. Adama Ba Adama Ba ce qui fait que ne boobu yàlla moo ko barkeel et sur le plan international. nag Latif. Mhm. comme ni ñu ko waxee pour décortiquer ko xam naa xam ngeen ko. Mhm. lam bi lam bi ne lam bi trente la. Mhm. bi neuf muy trente neuf. bi dix muy quarante neuf. faa bi quatre vingt soo ko boolee mooy cent vingt neuf. yàlla il faut commencer par la base par soo ko day nekk cent vingt neuf. 129 boobu nag moo tax ñu sikkat yàlla tiifu 129 aaya bi indi na xaalis ci alxuraan xam nga alxuraan am na juróom-ñeenti aaya la tiif ba ci indi xaalis mooy allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaau wa huwa alxawiyul aziz xam naa ne monsieur Ndour moom Ndour Ndour tey jii xam naa ne man sàccoon naa waa Tiwaan waaye moom tam mi ngi may sàcc waaw waaw yoon ma dégg gis nga 129 boobu boo ko multiplié par 129

sama doomi bopp sama taaw man moom laa ko jox waaw sama taaw dama ko fee mooy gént benn gént ñoo papa nanga ma nangam laa ma ne ko du ma sa sëriñ yow yow Thierno Souleymane Sall ma sëriñ ci daayiraam la bokk xam man sama sama taaw dinaa ko dugal foo xam te ne fii ay caaxaan dafa nekk ci daayiraam la bokk moo ko tarbiya moo naa ko tarbiya donc moo tax ñu koy ñaan latif bii moom naa ko woon sa bàyyee donc njariñ latif ngi noonu kër gu fi tàkk latif la taal li génne maa dee taal am yenn sa kër nag yoo xam ne gis ngeen 129 boobu ma wax leen xam ngeen décote que nag 129 léegi am na cuuraay bu muy àndal cuuraay ba naw xab yi moom du mooy leen ko wax moom du fii moom waaw waaw ah de du fii dag ñu ko dee waaw xanaa la yàlla defoon nag yonente bi rek fa awee ila abbi ma awee rek waaw ay huis clos gis nga xob yooyu xob yooyu gis nga affaire yi dafa kéemaane xam nga gis nga ma macha allah ilaa bi ma alim ñii am nañ seen seen seen benn waaye Assane xam nga ko. Ah, waaw waaw démb laa ko mujj a gis. xam nga keer <laughs> démb nga keer xam na ko xamee. Ah, waaw waaw si wax na ko wax na ko. wax na ko moom université keer fa na ko waaw bu guddee ñu ñu may déglu ci rajo bi. <laughs> Uh-huh. mu ni kii man daan nawet tur yàlla même su ma demee kii naa ko si kii li mu wax dëggal. Mm. Assane Sow looloo koy indi Sénégal bam bam bam immobilisé bi ma boole ko Cheikh mu nekk seen daara. waaw waaw. gis nga 129 yooyu mm-hmm. am na ay xob yooyu bind yooyu wuta xob yi si mystique xob bu ne da ciy bind cent vingt neuf wala nga bind ci latif parce que le nombre cent vingt neuf égale latif le mot latif égale cent vingt neuf oh. lam bi trente euh, taa bi neuf muy trente neuf yaay bi dix muy quarante neuf faa bi quatre vingt boo ko boolee la somme ça cent vingt neuf bon chaque feuille nga bind ci le nombre cent vingt neuf oh. ou bien nga bind ci le mot latif ba muy cent vingt neuf feuille soo ko boolee dëbb ko mooy am xaw ji bi seize mille six cent quarante uh-huh. waaw cent vingt neuf rek. après suuru ko. ko suura def cent vingt neuf. sa sa yoo ko amee soo ko suura rek boo demee cent vingt neuf wóor na def nga seen mille cent quarante et uh-huh. un. waaw seen mille cent quarante et rek soo ko defee na seet mbos moom tam nga koy suura. tax na la sax <laughs>

man maam Abdou Cissé. Ah. mooy jur sama maam. Ah. man yàlla may na ma ma nekk dernier bu ki nekkal. Ah, xam nga moom ku nga doon dund ak maam El Hadj Malick. 1902. waaw gàmm gi maam El Hadj mu jëkk gàmm. ma jëkk gàmm 1902. waaw ñoom ñoo ko gàmm. ñeenti nit la moom maam El Hadj Malick maam El Hadj bi nekk bi nekk Mbirkilaan. Abdou Cissé déedéet Abdou Cissé non sëñ Aline Gueye. ah non non non non maa ngi bi nekkoon mbir ki laa quatre personnes la ñu woon mam nee na ko tey la yonent bi judd woon mhm. dama leen di dañ koy màggal keroog mu ne kaamil lañ doon ba fajar ma doon xam ñu maa ngi toggal maa mën ma ci euh, mhm. mhm. euh, seq moom lañ reere ak cere maa ko ne su ma ngente ko ci pire moo ma ne man maa liggéey alaay gën a waat waaw sëñ ma sëñ ma du ma sëñ ma ko jël si dafa def. ki nekkoon nit ki laa waaw moo jur moo jur góor si. man ma ñun ñeenti ñi la woon. Mm. xool 1902. parce que kooku xam nga lu mu ne su ma ko nee maam. Mm. maam duñ tukki. Mm. maam boobu damaa bëgg a tukki duñ dem Tiwaawan man ma hee hee hee. gis nga Saalum Saalum lu mu yàgg yàgg àll. lam yow du changé <laughs> gis nga xalaat ci man. ba Malick demee ba tey fekkatuma kenn. waaye gis nga man li ma bëgg man ma fii la may fekk si bés bu nekk. gis nga latif boobu nag boo ko amee ak cuuraay doo wuti dara. xam nga naa leen jox nag benn boo xam ne alam nasha la. 103. xam nga alam nasha la. 103 xam nga tax 103. xam nga joxe. jiim bi 3. xaaf bi 100. am na gaa yoo xam ne nag classe gi maanaam dañuy sëkkat ku leen jox leen. <laughs> boobu tamit doon naa <laughs> moo ay ci dépense tamit. Uh-huh. waaw alhamdulilah. waaw waaw 103. waaw <laughs> soo amul dama bu guddee nga sikkar ko balaa ba tasee wala ba sotee. Mm-hmm. yow na sëñ bi damay fay jaaroon nag doon siyaare waaw lii de moom nangam ak nangam alam na sara nga doon waaw waaw donc yooyu moom. dafa na waa dafa naa makaan alien tam. 313. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. yooyu yëpp ay ubbeeku la yi ki des nag moom. sa sera ay huit kilos. waaw huit kilos kay il faut que ñu def huit kilos. jërëjëf yaay bi amoon leneen looy dolli waaw am loo ci baaxee rek man kay damay taatan <laughs> waaw sëriñ moom ñoo dolli damay taatan sëriñ sëriñ bi moom a <laughs> <laughs> am ko digoon xar ah. sama sutaan am sëriñ de surtout sax Abbas ay demel la ndeysaan maam jànga de ndeysaan waaw jërëjëf waay kontaan nañ lool. tu es satisfait ou non? Ah. كباسم أو كما كما وقال <laughs> وداير داير قلنا في منكني حافظ القرآن ها ها لا علاقته في منكني آية نحن ممكن أقل نكسر ما ما دي شيء بدرو ممكن أقل شيء بنيو كان أنت وبقى بقى جارو نلا إني أنا بقى يعني أنا سبب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شر القرآن لا